ba faf nag ñu ñu rey Umar ibnul Xattaab mu dem sëy ak Zubayr ibnul Awwaam te góor ñépp Zubayr ibnul Awwaam a ci gën a fiir te it bu dee génn fokk mu wax jabar yi ñu dem jàkka ci ndax dañu ko bëgg dañ koy wax euh, sëriñ daara boo dee dem nu ànd ak yow waaw ñi muy denc dañu bëgg jàkka waaye nag itam xër na ci aatika ndax bokkul ak ñoom am na classe bu ñu amul mu faf ko fiire ba bu sañoon du dem jàkka ja te nag faf aatika yàlla xiir ko rek nag ca jàkka ja ndax ñetti naqar yooyu mu tegle wane maa ngay dem jàkka ja mu ne ko waaw demal ah lu mu ci man laa tamnau ima allahi masajid allah mu dem waaye mu def ca pexe pexem arab def ca pexem arab mooy bàyyi ko ba mu tag mu dem summeeku kaalawu ba nirootul boppam romb ko rek dóor ci ndigg li ci ndiggal jabar ji jabar ji fax dematul jàkk ja xanaa fax dem kër ga mu toog ci ëllëg sa ndaw si tàggu wa ko yoonu jàkk mu toog ba gannaaw ëllëg sa ndaw si tàgg wa ko yoonu jàkk mu ne ko xanaa doo dem jàkk ja mu ne ko eh, eh, kunna naxruj idi naasu naas wa ma bihim min baas wa ama al an fala fahum ardaanun <coughs> mu ne ko ba ñoo dem njàkk boobu nit ñi dañu nekk nit ah baax nañu waaye léegi ay tilim rekk lañu moo tax dootuma dem jàkk te moom moo fexe loolu de waaw <coughs>